mbokk internet yi ñuy suivre tal leen ak jàmm ci xibaar Babacar Touré borom Kéwoulo TV gannaaw ba nga xamee ne nag teewoon nañ ko si ay problème yu moo amoon ak ki nga xam ne moo di Frédéric Napel maanaam nag mu daal di ko doon dooroon ab plainte ba taxoon ñu daal di koy téye moom nag wax nañ ko ne nag sax nag indi na preuve yi nga xam ne nag moom lañ ko doon toppee. si mbirum feu agent bi di Frédéric Napoli waaye nag teewul moom dañ ko téye moom Babacar Touré moom nag ñu jot si ay xibaar kenn nag yóbbu nañ ko urgence bu hôpital principal moom Babacar Touré jamono ji ñuy wax ak yéen daal di nañu koy yóbbu fële sa hôpital ndax kane nag euh, dafa am maanaam wére dikk yaram si kaso bi nga xam ne fa lañ ko teewoon mu nekk mbir mu doy dal daal di daal si kaw journaliste bi di